Gabon Production ak Darou TV les dans les besoins de la population sénégalaise. دواما للذي اختاروا ربا به قد قنيت اليوم عبدا بذكري واني يطوفنا او النار وسبا نبس لقال الله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سبا ارتل ما دمت حيا واكتفي يبى إليه الهداي وهو مهن وواسع له الملك ثم الأمن والآل قد سبى خرجت بفضل الله من كل باطل وفارق تدبيري nañ maase nañ maase diglu kàdduy sëriñ bi waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Cheikh Mahamadou Mountakha mu yàgg fi loolu tànd ak wér ñi ngi nuyu bu baax a baax Serigne Mamor mi nga xam ne moo fi nekkal ma Massamba di nuyu njabootu Serigne Massamba gépp waaye di nuyu sunu kilifa gii toog di sunu sëriñ di sunu lépp muy sëriñ Ahmadou Mbacké mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Moustapha sëriñ ma sàmm Mbacké sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar ci bis bii di sant yàlla bu baax a baax ci teew giñ ñu teew ci sa kanam tey jii ndax jëmmi sëñ Moustapha rek lañ jàkkaarloo bët biñ doon xool sëñ Moustapha rek moom lañu xool ci yow. ci bis bii nga xam ne bisu ñaan la bisu barkeelu la waaye bisu tuyaaba la bisu wut lu baax la ñu ñëw fekk la fii ànd sa rakk ji di sëriñ Cheikh Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Moustapha xam naa baatub rakk ji sax du ko gënal li koy gënal rek mooy sab taalibe sa jóorin di sa xarit mu ñëw ànd ak ay xaritam sëriñ seex Mbaye Guèye mii niñ la ko waxee léegi di wëllëreem nga xam ne ñetti fan yi yëpp mi nga ànd ak moom bàyyi lépp liggéey baak ndakaaru yëpp ñëw ànd ak bis bi sëriñ Cheikh di wëllëreem lool ñoom ñaar ñuy benn bis bi mu yëkkati ay teraanga yu bare bare jox ko Serigne Cheikh mii ne ko ni ma demee ak yow lépp lu war ci sa bis ko war a def waaye loolu doyut mu bàyyi temps ak léppam ñëw àndaat ak moom fas yéene ak moom bismi bi ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ko sëriñ Touba booleel muy séen bunt ci kër ma sàmba ndax yoon wi moom kenn ku nekk genn garab la rek dafay bànqaas kenn ku nekk day am fóotee waaye ñëpp ci genn garab gi lañ jafandoo kon nag yoor-yoor gii nga xam ne Serigne Cheikh moom la ñëw tey jii di la siyaare ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne amul lu dul moom dañuy fàttali rek daanaka bisu yoor-yoor màggalug Tuubaa nga xam ne yaakaar ju réeré dana ci juddoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, ñu ngi leen di nuyu i leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Serigne Ahmadou Mbacké mi nga xamante ni mooy xalifab Cheikh Mouhamadul Moustapha. di delloo ay cant ak ay ngërëm ci ay rakkam waaye li ñuy wax ni wama shahidna illa bi ma alim na sëriñ Cheikh dañoo xam ci moom ak cofeel ak mbëggeel ci sëriñ daanaka day doomam day taawam ndax lépp loo xamante ni daana ko defal Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi koy jëflanteeg magam te moom it li ñuy wax ni li mu yor da koo bokk ak ñëpp bàyyi leen ak li ñu yor loolu la cëru kilifa di def mi ngi sant bu baax a baax a baax di am taxawaay bu baax a baax di am yaakaar bu baax ci Serigne Cheikh ndax ñun xëy na am na lu ñu xam ci moom ci ay jëflante yoo xamante ni mi ngi koy jëf te bëggul mu feeñ lu ne mi ngi koy def ngir ndamal kër Serigne Moustapha jaral na ko lu nekk te ñun sëriñ Moustapha la ñu am te kii fi nekk. ñun dañuy xool ci moom jëmmi sëriñ Moustapha ku ko jàpp ñu jàpp la ku ko jàppul ñu doyadil la man foofu laa toll. te moom am na cofeel goo xamante ni ak yaakaar boo xamante ni nam doon jëflanteeg Serigne Moustapha rek la jëfandikoo moom. fu mu nekk ci Serigne Ahmadou la nekk fu mu nekk ci sagul Serigne bi la nekk fu mu nekkit dëkk bi li nga wax ni moom la ñu bëgg ndamal dëkk bi la bëgg kon Serigne bi mi ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal ci bis bi nga xamante ni wér nañu ni. lu mu ñaan dana am lu mu ñaan dana am ndax xam nañu taxawaayam ci sëriñ Moustapha xam nañu bëgg-bëggam ci ay rakkam bu sañoon ay rakkam lépp loo xamante ni nit dina ko am ci lu baax ay rakkam la koy jox bàyyi boppam kon deseelatu ko dara ñi ngi ñaan yàlla daal seen ànd bii nga xamante ni moom la ñu ànd yàlla na leen yàlla defal ndam yàlla na leen yàlla defal tawféex defal leen fan wu gudd defal leen lépp loo xamante ni yaakaar la mu nit ñaam ci ñoom sëriñ bi daal wax dëgg yàlla xolam sedd na ndax lii amul lu ko gën a rey bàyyi ay nitam fee ci ak fii temps bi toll nga bàyyi sa yëpp ñëw ni yaa ngi jëmal sa bopp dafa xam ni magam noonu la daan jëflante kilifaam mu xool la bëggul dara xamul dara lu dul sëriñam ba may ko lii mu am kon nag wax dëgg yàlla ñi ngi lay sant bu baax di rafetlu bu baax mbir mi di ñaan yàlla yàlla defal la ay tawféex ba li nga bëgg a def ci yoon bi yëpp yàlla defal la ko ci barke Cheikh Massamba incha allah. sëñ Bara wax mën na sax. waaw waaye li ma ji daal bind la yoo xam ne moo xamee yàgg na. waaw man bu gisee ngeen sama xel dana a yaakaar itam dana gën a dolli. may ñaan daal ci day bis bi ak borom bis bi. li la tax nekk yàlla may la ci ndam. yëkkati la ca. la ca na moom mii ñoo bokk ndey. man sama ndey jiitu na waaye ndeyam ji fi nekk mooy sama ndey waaw moom sax xam na loolu ñeneen ñëpp xam nañ loolu waaw kon jotaayam bii du asaar bu ñëpp bu kenn ñëwul woon tam ñëw itam lépp mat malgré que nag ñëpp a ngi ñëw waaye ñëwoon bii dafa am leneen lu muy représenté ci man du Moustapha ji képp waaye ak yeneen yu jiitu moo ci am may def nag xam ni moom nii fu mu nekk ak ci lu mu nekk maa moom a ca ànd te maa ngi cay jàpp ca nu mu ca mën waaw lu mu nekk rek daal nañ jàpp ni ànd naa ci moom te man la ca nekkal ci fu fi doon nag ma koy ñaanal suñu borom yàlla yëkkati ay yàggal yokk ay taxawaayam te dëgëral ay tànkam ak ku ànd ak moom dak Cheikh Massa waaw jàpp daal sa sa doom la waaw sa taalibe dëgg la amul lu yow hmm. yow waaw kii la séeréer dox séeréer dox jërëjëf ñaal ko baax na xam nañ ko bu baax a baax bi dafawal jalba raditu bi rabban kariman mukarriman waqaani lidaa wal harba wal bara Gabon Production ak Darou Minane TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise